kii dafay laaj mu ni ci cérémonie yi am maanaam daje yi am léeg-léeg dañuy wax nañu def une minute de silence lan mooy àtte lislaam ci loolu maanaam jullit yi nga xam ne ñooy def loolu une minute de silence yooyu ñuy def ci yenn daje yi am. waaw ah, bismillaahi rahmaani rahiim loolu de moom xam naa aada yi aw nit la lu ñu xam daal ci lislaam nekk lu ñu xam ci lislaam lislaam daal li ñu ci xam mooy nit. bu fi bàyyi ko ay bokkam ay bokki jullitam dañ koy ñaanal euh, ñaanal daal lañ xam teewlu ñaanal nit loolu daal lañ xam ci lislaam waaye une minute de loolu lu aaday lislaam aaday ñeneen la euh, aaday ñeneen nag ab jullit mën na ko bañ a rawat na ci ndaje moo xam ne ndajem lislaam la loolu leer na kii dafa ni kii dafay laaj ndegam ñu ko leeral baat yi annafsul ammaara annafsul ammaara bi suu ak annafsul lawaama annafsul mutmainna ak baat bi ñuy wax fanaaw mooy lan. fanaaw. al fanaaw. ak lu ñuy wax albaqaa ak tawassul baat yooyu mooy lan annafsul ammaara bi suu. waaw léegi ci tasawuf bu ñuy tarbiya doomu aadama ji dafa am ay tolluwaay yu muy toll yoo xam ne bu ci nekk bu fa tolloo ñu tudd ñu am ñu ko tuddee ak nafsul amaaratu bi suu mooy bakkan bi digal nit ki aw ñaawteef mooy nit ki nga xam ne kenn yaragu ko ko tàggataguñu ko moom itam jëkkoogul bakkanam nga xam ne bakkanam moo ko not di ko digal lu bon mu di ko topp ko ki tollu foofu bakkan bi tollu foofu kon mooy an-nafsul ammaara bis-suu mooy bakkan daal loolu ko yàlla binde mooy bakkan bu ñu yaragut bi nga xam ne yaraguñ ko ba nga xam ne fu mu toll digal boroom ñaawteef mooy an-nafsul ammaara bis-suu fekkee ñu ngi koy yarit mokkagul mokkagul ba léegi mi ngi mi am xemmemteef ci safaan xam nga bakkan dafa nekk koo xam ne mooy awokaa yaram maanaam mooy laajal yaram bi euh, ay yitteem ni nga xamee ne euh, xel mooy laajal bu yitteem kon bakkan li muy laaj am na ci loo xam ne lu baax la loo xam ne nit mënu koo ñàkk am na ci loo xam ne nag ab safaan la bakkan bi ñu yar nag day dem ba àgg ci dootul laajati lu dul lu baax rek waaye lépp lu safaan bu ko bu dee nekkoon ci bakkantam itam dootu ko laajati dootu ko dootu ko bëggatee laaj euh, ki nga xam nag weesoo gut bakkanam weesoo gut a bëgg ab safaan bànneex boo xam ne du bànneex bu baax bakkan bi ko weesoo gu bëgg di ca xiir boroom mooy annafsul amaara bi suu annafsul amaara mooy bi nga xam ne moom euh, nit ki yar na bakkanam ba nga xam ne daal di gën a bari da koy tege ci yoon léeg-léeg lay jàdd euh, su jàddee itam dana yëg ci biiram du koy yàdd loolu mu yëg ci biiram mu koy yàdd mooy annafsul amaara mooy nit saa su demee ba nga xam ne daal conscience am mi ngi dund bu baax ci biiram ba nga xam ne saa su defetee ab safar dana yëg ne def na ko mu di ko mettit di ko rëccu su boobaa kooku toll na ci an nafsul lawwaama mooy dox na ab jéego ndax mi ngi góorgóorlu al na mooy bakkan bi nga xam ne moom mooy bu bi ñu yar daal ba mu baax nga xam ne euh, li neex yàlla rek lay bëgg Euh, lu naqar yàlla dootu ko bëgg tey it ci yoon rek lay tege te nooy na neer daal kooku mooy nafsul mutmainna alfanaaw euh, alfanaaw ci tasawuf mooy nit ki daa ba dañu koy firé dañu ko tuddee dañu ko firé fanaa u muraadil abdi fi muraadillah maanaam bu nit ki demee ba nga xam ne amatul ak bëgg bu nit demee ba amatul ak bëgg nga xam ne moom li yàlla bëgg rek la bëgg li mu bañ rek la bañ amul bëggu boppam euh, lu mel ni sëñ bi wax ne aqsantu billahi inni li nabi abadan xillun wa xibbun wa ma yaa baaw a baaw nabiyul nabiyunal Mustafa xëy wara xarade fi kulli shay wa ma a nga xam ne moom li li bëgg la bëgg li mu bëgg it la yonent bëgg kon koo xam ne dem na ba amatul bëggu boppam bëggam gépp ci biir bëggu yàlla ak yonent bi lay dugg loolu moom des na ko firee fanaaw am na ñu koy firee leneen nag mooy bu nit demee ba yëgatul boppam nit ki bu doxee ci yoonu tasawuf ba li koy dikkal ci boroomam ci ay leer ak i mbóot euh, not ko ba yëgatul ne moom ku am la xam ne yëgatul amul boppam amul boppam yëgatu ko nekkatu fi daal waaw koo xam nekkatu fi yëgatul ne moom ku fi ku ku ku yëgatul dara ci boppam daal yàlla rek lay yëg ci waxtu nekk ci bu nekk moom la cay gis loolu am na ñu ko tuddee fanaaw loolu nag bu ca nekkee day dem ba mel ni ku ku ku antatu ku nekkatu amatul xel nga xam ne dootul defati dara loo xam ne dana yëg ne mi ngi koy def bu def dara loo xam ne day day ku fi nekkul daal la mooy ku fàddu ku fi nekkul ku dem ku dem yoonam ku jeex ci boroomam ba nekkatul nga xam ne yëg xamatul li muy def yëgatu mooy fanaaw demee nag ba yàlla dogal loolu yëg jeex mu jeex ci boroomam mu ngi ci moom waaye nag yàlla delloosi na ko yàlla si na ko nga xam ne mi ngi ci biir nit ñi di def yëfi nit nga xam li muy def mi ngi koy xam su boobaa loolu moom lañu te al al al al kii dafay laaj mu ni yaakaaroon ni taxawaayu kilifa diine yi dafa war a ne ñu yaatal lislaam ci réew mi ba ñu jëfe sharia loi atte lislaam kilifa diine yi seen taxawaay dafa war a nekk ci réew mi ba ñu jëfee sharia ba ñu jël comme loi sharia di ko appliquer loolu kay jàpp naa ne kilifa yi yaakaar naa ci lañ nekk ndax kilifa yi diine ñoo ma gën a xam lislaam ñoo ma gën a xam li nga xam ne moom lañ yilif ndax ki ki nga xam ne mooy kilif ak diine ki yilif mbooloo mi ci diine ji kooku la diine ji teewoo ak la nga xam ne moo ca war moo moom xam na ko bu baax a baax fekkee tur wañ koy waaye wuyu na ko moom a koy gën a xam fuuf moom a koy gën a maîtriser moo may gën a xamit fi jamono toll ak li mu laaj ak stratégie ba mu war a tëral ak lay xekk ma ci jamono loolu lépp moo ma koy gën a xam te du ma mën a wax nag ci place ci suñu mbir mii di ci diine ji ku ci sos loo xam ne bokku ci dañ la koy delloo man ahdas fi amrina haza maa laysa minhu waaw ku ci sos lu ci bokku loolu nag bidaa nag firiwut lu bees bidaa firiwut ci diine xam nga dafa am bidaa ci luxa ci làkku arab ak bidaa ci diine bidaa ci luxa ci luxal arab yi mooy lu bees lépp lu bees rek lépp loo lu bees la rek bidaa la euh, loolu lay lépp loo xam ne mësee su def ci jamono yonent bi sallallahu euh, ko nit defee loolu lu bees la waaye nag nit mën naa def lu yonent bi defuloon ci jamonoom te du tax la mu def nekk nekk biddaa micro bii may waxee nii yonent bi mosu ci wax ab saxaab yi mosu ci wax suñ mag ñu baax sax waxuñ ci woon kon lu bees la waaye nekkul biddaa ndax du loo xam ne lu ñu tere la du lu ñu tere euh, te lépp loo xam ne lu lu yàlla jox nit ñi maanaam lépp lu dagan lépp loo xam ne dagan na sañ nga koo jëfandikoo ci ak jaamu yàlla te lii bokkul ci loo xam ne lu ñu tere la luy jo luy euh, jotli ay wax di ko yaatal euh, loola jotli ak yaatal rek nekkul lu ñu tere fekkee li ngay jot lu baax la kon jotlikaay kese kese jumtukaay kese moom boobu moom nekkul lu ñu tere dina nekkul lu ñu tere nag man su ma ko defee te yonent bi daaw ko def li ma def lu bees la waaye li ma def itam du bi daal ndax li ma def du lu bees ci diine maanaam du lu bokkul ci diine lu bokkul ci diine mooy loo xam ne diine ji la koo tere lii diine ji téerewu ko kon euh, ginnaaw maye nañ ma jëfandiku kon léegi loolu euh, mënees ko tuddee bidaa kon daal li am solo ñu teqale lu bees ak bidaa doonul ne lépp lu bees bidaa la am na borom xam-xam bu ci masoon a bind wax ci lu kii mooy laysa kullu jadidin bidaa mhm. waaw am nga ko boobu mi ngi doon tontu ñuy wax naan daje di gàmmo bidaa la kooku loolu la ñooñu dina tontu. kii dafay laaj moom lan la sëriñ bi wax ci jébbalu ak ci kuñ war a jébbalu lañ war a jébbalu sëriñ bi li mu wax ci jébbalu ak ci kan lañ war a jébbalu. waaw sëriñ bi euh, li mu wax ci jébbalu mooy dafa wax ne képp koo xam ne dangaa bëgg a yoonu tasawuf dangaa war a wuti ab sëriñ boo xam ne moo lay omat ci yoon yàlla. Euh, su ko defee nga jébbaltu sa bopp ànd moom ja nga ànd ak moom loolu la wax euh, wax na ko ne euh, wa min lawazimiha wax na ko tariqu wa ashrata jaat lawazimiha la budda minha li arbaa min fa maqsadun wa huma yufdi ila safarin minha dalilun ka cheikhin zikutoo xaati wax na ko itam ci yeneen i barab kon képp ku bëgg a soogu ngërum tasawuf na nga wut ab sëriñ nee na képp koo xam ne da nga da ngay sóobu ngirum tas wutu sëriñ ah, yaa ngi da ngay da nga sonn alku te doo jariñu fa kullu man qad la wusulihi i'tazal wala bi rabbihi murabbin qad kamal fa innahu yaxuudu fi lujjir rada wala yajibu min shay'in abada li annahu yaqulu shaytan wala huwa kama abanu dégg nga fa kullu man lam yata'addab zamana ala yadi shaykhin fa yabqa mihana li anna man alima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada kon li mu wax moom mooy képp ku jëm ci yoon yàlla bëgg a sóobu ngirum tasawuf da ngaa war a wut ab sëriñ jébbalu nag mooy fas gi ngay fasante kóllëre ak sëriñ ba nga wut loolu moom kon lu mu cay dolli la rek aw defin la rek <coughs> ki ñu war a jébbalu mooy sëriñ bu matul sëriñ mbaa ndawam mbaa jëwriñam euh, sëriñ bi matul sëriñ sëriñ bi leeraloon nañu ko ci ay koo xam ci majmuwa bi mooy koo xam ne ñetti xeet sëriñ yëpp mat na ci moom mën naa doon sëriñu jàngalekat mën na doon sëriñu yarkat mën na doon sëriñu tarbiyakat sëriñu jàngalekat mooy ku am xam-xam bu leer bu wér bu tegu ci alquran ak sunna mu am làmmiñ yu leer mu ko mën a leerale ak ay lay yu mu ko mën a dëgërale te sàmmonteeg euh, sàmm sàmmonteeg la la borom xam-xamal sàmmonteel ci maandu ak njub ak ragal yàlla ak wartaniku ay tuuma euh, dégg nga ñett yooyu mooy sëriñ bi mën a jàngale mooy koo xam ne ñu xam xam na lu wér mën na koo leeral tam nekk na royukaay yarkat mooy ku xam ku xam nit sëñ bi mën a yar mooy wax day xam bakkanu doomu aadama day xam bakkanu doomu aadama psychologie maanaam nit ku gis ku ne war naa xam la sikk ca nit ka la sikki ci nit ki war na koo xam ah, ak la koy defar mi ngi mel ni médecin rek war naa mën a war naa jàng médecine ba nga xam dana am xam-xam bi ñaareel moom war naa mën a faj maanaam sikki su muy xam war mën a dindi docteur bi du doy mu jàng xam-xam médecine waaye daf caa war a boole jàng xam mu jëfandikoo ko ñu tàggat ko ci jëfandikoo gi ba man mën a faj maanaam mën a dindi sikki sii nekk ci nit ki mën a def ci moom la war na ne ci moom ci ak defar mu ñaar euh, war naa doon koo xam ne tam war naa xam àdduna maanaam jamono ji muy dund lépp lu ci nekk war na ko mën a xam lépp lu ciy jeexital ci doomu aadama rek di yàq diine mbaa ngor mbaa muy gàllan ko doomu aadama rek war naa xam loola fu mu jógee ak lu mu ak ban xeetu yàq la mën a def ak nu koy lu muy doxee diggante nit ki ak ak ak loola ba di si ci moom baa bu yegg si ci dana xam ne muy def ba génne ko kon ñett yi mooy euh, sëriñ bi war a yar la war a mel daa war a xam nit war a mën a faj war a xam àdduna li ci nekk lépp kii war a tarqiya mooy koo xam ne boo gisee jëmmam ko yàlla gis gi rek jëmmam rek soo ko gisee saxal dem ci yàlla su waxee yow sa pësteef dolliku boo jaxasoo moom mu jox la wàll ay leer loolu mooy sëriñ bu matub sëriñ mooy alkaamil alkaamil kooku lañu war a jëblu ci moom euh, bu ko defee nag bu kaamil amul nag naaqis moo fa sës naaqis mooy koo xam ne matul doo wax nag ne man awma ku mat kon du ma du ma du ma du ma du ma du ma du ma jàpp ci kenn maanaam képp koo xam ne yow moo la tànn rek ku la gën a xam koo xam ne yow moo la gën a xam moo la gën a jub te boo taxaw moom mën ngaa soppi ko su boobaa kooku nga ànd ak moom moo gën nga toog bañ a ànd ak kenn wala nga verser am bopp te xamoo kon kaamil moom mooy ku mel nii waaye ku ko amut it la fa sës barab bu nekk la fa dim ñàkk la fa la fa di dafay ñuul moo fa di ab ñàkk rawatina ci wàllu tariqa moom dañuy wax ne. Euh, faw nit ki da ci da ci da euh, da ngay taalu da ngay bokk masam tey ngir nga doon murit faw nga am pasteef ci Sëriñ Tuubaa faw nga gëm Sëriñ Tuubaa ci boppam gëm ne ku yàlla wàcce la ngir mu xet ci doomu aadama ku am cër ci borom la koo xam ni ñuy gëm ci moom lépp lu ko raw ma nga ca moom nga gëm nga am pas-pas boobu ci moom gëm ne mën na laa xet li àdduna ak alaaxira ah. gëm ne aw yoonam it yoon wu jub la nga fas yéene koo def muy sa royukaay ci diine mhm. nga fab loolu nag mu nekk ci sa xol nga def ko mu nekk sa pas-pas loolu nag bu amee euh, faw nga dem ci nit koo xam ne jëwriñam la maanaam koo xam ne moom bokk na ci yoon bi koo xam jëwriñ la ci yoon bi di koo xam ne boo gisul jëmmi sëriñ bi ci boppam ka mu defar ba mel noona mbaa ka koo ko defar mbaa ka ko ka jokkoot maanaam daal day am ñuy wax silsila maanaam da ngay jéblu ci ku jéblu ci ku jéblu ci koo xam ne bu ñu ko toppee daal faaw dana dana àgg mi ngi mel ne yow nga doon branché courant rek sa fiil gi foog nga jokk ko ci fiil courant mag ba mhm. maanaam fi nga jokk na jokk ba àgg ca courant ba nga xam ne bu ñu ko taalee mu egsi ci yow jokkoo bu mënti ñàkk euh, su fekkente ne bëgg ngaa bo doon ab taalibe kon faaw nga def noonu waaw su ko defee ka ngay jokk nag na nga seet ba mu doon koo xam ne bu dul ko gën a matit na doon ku bokk ci ñu gën a tane lu mu mel lu mën di kii nag yow na nga tane yow moom waaw ndax sëñ bi waxoon na ne sëriñ si ak taalibe ñeenti xaaj lañu ñeenti xeeti sëriñ moo am ak ñeenti xeeti taalibe sëñ Tuubaa wax loolu sëriñ ak taalibe yoo xam ñoom ñaar ñëpp ay njàccaar lañ njàccaar mooy koy gis moom bu jaaree ci yoon gis yoon nga xam ne sëriñ bi ak njaa ñoo ñëpp ak njaacaar nee na seen yoon du yàgg ndax buñ doxee ci yoon ba jub kàmb sëriñ bi day taxaw ba taal bi ak si mu joxañ ko kàmb ñu bokk gis ñoom ñaar ñu bokk ceg yi sëriñ ak taalib xam ne sëriñ bi mooy njaacaar taalib bi nekk silmaxa kooku li mu war def mooy daa war a jàpp ci moom da ko war a jébbal ak tumam rek wammatu ci ay loxo fu mu ko jaaree mu jaar fa bu demee ba àgg ci kàmb ko du jar mu koy wax dara moom mooy teggi rek teggi waale ko euh, ak sëriñ ak taalib boo xam ne sëriñ bi mooy taalib bi mooy njàccaar sëriñ bi nekk silmaxa si sëriñ bi ci boppam mooy njàccaar taalib bi nekk silmaxa mu ne bu dee loolu la taalib bi na def ndànk ci ab doxam te bu mu sës rëkk ci sëriñ la ko daan bi ba nga xam ne bu bu sëriñ bi daanu ci kàmb gi dana fekk mu sori ko ba séen ko mu daanu bu ko defee moom mu romb kàmb ko jàll ak boo xam ñoom ñaar ñëpp ay silmaxa ñu ànd ba daanu ci kàmb ga taalibe bi poñe sëriñ bi ne ko war nga maa wax ne ma silmaxa mu ne ko yaa ko tey xam nga gisuma ci suñu yoon wii ku ñuy dëgërloo waxam la amul kuy gëstu ci yoonu murit lu dul yaa ngi jokkoo ak moom ndax li muy jàngale fu wóor la ko jële te ba mu koy wax tamit dina ci bàyyi xel li nga xam ni mooy li wér moo tax ma leen di soññ ngeen di fonk question yi ngeen di posé heure bu ñëwee université sëriñ bi question yu bëri la ñuy jox waaye du ñu am jot faram-fàcce lépp moo tax ñuy ñaan waa Mafaatih Bichri mu am commission boo xam ni dañuy yittewoo loolu boo jëree ngeen tukki sax ba Touba dajeeg boroom xam-xam yi ñu leer leen lu bëri ci question ci wàllu diine ak ci yoon wi ak ci waxu sëriñ bi bañ a sukkandiku rek ci li ñuy dégg ci yenn cassette yi wala yenn conférence yi. comme ni mu ko waxee sànq ñoo xam ne dañuy jël média yi di ci jàllale loo xam ni duñ ci ragal yàlla waaye seen bopp rek la ñuy feeñal kon ñu ñuy gërëm sëñ bu baax di suñu borom mu dëgëral taxawaayam ba mu yàgg di teew ci bërëb bii di ñu leeral ci suñu ci ci diine ji kon ñu jàll ci beneen waxtaan bi nga xam ni moom la ñu junjoon léegi muy sëñ Abdul Moutalib Mbuub moo la ñu waxtaanal ci le méfaits des intique de nouvelles technologies de l'information et de la communication mais également les méfaits de l'alimentation certaines catégories d'alimentation moo lañ ci waxtaanal ñu yaan suñu borom mu yombalal ko mbir mi